madame ministre de la jeunesse mel ne Fatoumata moo ñu fi yónni pour que ñu ñëw euh, jëmbal taxawaayam ci forum bi nga xamante ni jeunes yi Sénégal ñoo ko taxawal pour jéem a jëmmal engagement bu nguurub Sénégal jël euh, euh, novembre bii passé novembre deux mille dix neuf donc def na at fële ca Nairobi ñëpp xam nañ ne Nairobi defoon nañ fa benn ndaje bu mag lël bu mag nga xam ne dañ fa doon waxtaanee lépp luy wàllu euh, wërgu-yaramu xale yi mais surtout wërgu-yaramu côté seenu problème mu en tout cas njurukaay yi donc engagement bi ñu jëloon état Sénégal bi nga xam ne vraiment bu concerne ministère de la jeunesse mooy que ne am nañ li ñuy wax expérience am nañ lu ñuy wax les clubs de jeunes filles wax naa ko léegi ñun dans nos centres conseil ado xam nañ ñu lépp lu jëm si wàllu euh, éducation sexuelle du question yoo xam ne dañ koy waxtaane trop ci suñuy famille ñun dañu am lu ñuy wax l' approche père éducateur dañu jël ay club de jeunes filles ay xale yu jigéen ñu nga xamante ni ay waxambaane yu ndaw former leen jox leen ay thématique ñoom ci seen bopp ñu wàcc si communauté bi waxtaan ak seeni ñooñ pour que ñoom it ñu mën a euh, jéem a xool nan la ñuy def ba problème yi nga xam ne xale yu jigéen ñi ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu sëy ak ëmb yu teel yi ak maye yu teel yi ñu leen di maye ak lii tax ñuy bàyyi école teel ñu mën ci en tout cas mu doon seen problème ñu waxtaane ko donc expérience boobu nga xamante ne club de jeunes fii ñu ngi euh, def li ñuy wax New Deal New Deal nag ñetti ci ñetti ponk la taxaw ponk bi si njëkk mooy dañuy dajale euh, waajuri xale yi ak xale yi ñoom si seen bopp ñu toog ku ci ne joxe engagement waajuri ne ñun dootuñu joxe suñu doom ñuy sëy avant l'âge de dix-huit ans xale yi ne ñun nit incha allah dinañ ne suñu waajur yi dinañ leen jox engagement du ñu ëmb fia amuñu 18 ans fii ak amuñu bac donc loolu ñu expérimenté ko Kolda ñu jox ñu résultat yu takku yoo xam ne yi tax ñun UNFP mi nga xamante ni moo ñuy jàppale tout ce qui politique de jeunes en centre de la reproduction ñu fexe ba loolu euh, Tamba la démarré naam mais Kolda la amee vraiment euh, succès bi mu am yëpp ba ñuy dem Nairobi ñu yóbbaale stratégie boobu parce que bu ne. da ngay indi sa benn expérience novatrice donc expérience bi Sénégal yóbbu woon mooy New Deal bi te vraiment ñu partagé ko fa mu mu mu séduire communauté internationale yëpp te pays bu ne boo fay jóge da ngay jël engagement ñun tamit engagement bi ñu jëloon mooy que ni loolu noonu duñ ko yemaleeti sud du Sénégal rek wala sud-est rek dañuy fexe ba mu law ci pays bi réew mi réew mi yëpp CCA yëpp jël loolu comme stratégie di ko doxal pense que ni loolu moo nekkoon engagement bi gën a fort bi état du Sénégal jëloon foofu à Nairobi ci ndimbalu en tout cas madame Néné Fatoumata Tall si bopp demoon na ci ndaje boobu euh, donc engagement bi nag bu ñu paree dañu waroon organiser forum nag comme bi jeunes yi ñoom it xoo fexe ba euh, approprier wu engagement bi mais créer des kenn document de plaidoyer parce que ñëpp xam nañ ni jeunes yi pour que engagement boobu am il faut que décideurs yi ñoom it topp leen donc loolu moo indiwoon lël bi ñu fi doon ñaari fan yi te vraiment di rafetlu aussi liggéeyu PPJ ci loolu boobu ba léegi euh, di gërëm aussi madame la directrice PPJ mi nga xamante ni vraiment loolu yëpp moo coordonné forum bi te ñëpp gis nañ ni engagement jeunes yi bari na ñëpp ñëw nañu te tënk nañu aussi. seeni recommandation ci këyit bi nga xamante ni dinañ ko jox bu soobee yàlla so ñun suñu stratégie ñun uh, du ñu nekk ñoo xamante ni dañuy ñaax xale yi wala di leen pousse si méthode contraceptive parce que ñëpp xam nañ ni tamit uh, ay leen xale yi naam ay xale lañ seen préoccupation bu njëkk pour ñun mooy nan la ñuy def ba génn si nan la def ba jàng ba formé wu ba am mais sexualité pour ñun loolu pour war nañoo mën a eh, jéem a xool fu ñu jàpp ba pare doog duglu ci loolu doog a duglu ci tànku sëy moo tax ñun eh, loolu du stratégie bu ñuy développé trop naam nag CCA yi ñëpp xam nañ ni aujourd'hui am na xale yoo xamante ni nga nga bañ ko nga nangu ko ils sont sexuellement actifs donc dinañu fréquenter CCA mais ñun dañ leen di conscientiser di leen fexe ba loolu ñu génne ko seen xel ba vraiment xam ne ñoom seen priorité feneen la war a nekk